alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi cant day ñeel na yàlla sunu borom moom rek mooy ki yeyoo ñu sant ko moom mooy ki yeyoo ñu gërëm ko ndax daf noo defal loo xam ni kenn musuñu koo defal te kenn duñu ko defal ba àddina tukki sunu borom day buur bu baax la ci ñun rawatina ñu gëm yàlla ndax bokk na ci xéewal yi mu ñu defal te liñ dul tudd mooy ëpp ci jamono bu ne sunu borom dafa tàkk ak barab bu ñuy tuddee àjjana yànjal ko lool ak ay xéewal xéewal yoo xam ni bët musul gis lu ni mel nopp musul dégg lu ni mel waaye xel musul xalaat ba daj lu ni mel sunu borom waajal ko mu mel na mu mel te moom du ko jariñoo waaye suñu borom daal di koy waajal ngir jaamam yi ko gëm doon ko topp ci kaw suuf mu nekk seen ab neexal mu nekk seen ab dig yemul ca loola waaye suñu borom mbokk yi mu yombalal nu jëf yu baax yi nga xam ni mooy tax a dem àjjana jàppandalal ko ba boo seetloo bunt yi ci jéegu jëm àjjana moo ëpp fuuf bunt yi ci jéegu jëm safara ba tax na jaam yàlla yi gëm yàlla waruñoo am yeneen yitte ju yootu rek buntu yooyu nga xam ne ca lañ mën a jaar tàbbi àjjana sunu borom yemul ca loola waaye nag métti moomuy tàbbin àjjana sunu borom daf koo ëmbee daf koo àmbalee xéewal boo xam ni xaw tuuti kon mu toll ni tàbbi àjjana wala mu dàq ko muy xaalidina fiha abada ndax xéewal kat mbokk yi ku ca lekk lu mu neex neex bu fekkee am na fu mu yem xéewal ga ma neex na saa fàtte waaye xéewali yi bokk na ci li tax mu neex moom mooy ajana amut yamukaay waaye day nekk rek faaw rek jëm bu kenn xamut suñu borom yemut ca loola waaye dafa dafa dafa dafa dafa gërëmu dafa gërëm jaam ñi nga xam ni ñoo ko doon topp ci loo xam bu doon doomu aadama ak morom rek du ko tax a ndax suñu borom kat mu tuut ci cig mbaa suñu borom ko gërëm ca loola waaye da ca yem daf koy ful waaye doomu aadama lu mu def ci ay ñaawteef ci gëm yàlla lu mu rëy bu ko jéggaloo rek sunu borom xalaat yëpp daal di sànni sunu borom ba mu noppee ci loolu defalaat ñu yeneen mooy daal di dogal na ca boppam bind ci ay mbindam wax ca ay waxam ne ah meram kat lu xar waaye nag sunu borom def na ba am meram yërmande moo ko jiitu kon moo koy commandé yëmul ca loola waaye sunu borom kat mu daal di def ni kat yërmande moo jiitu la nga xamante mooy meram. te it ku bari yërmande la moom borom bokk na ci xéewal yi ñu dafa suñu borom defal mbokk yi mooy diirab at mi yàlla daf ñu fay wutal ay occasion yo xam ni faggukaayu tuyaaba la waaye tàbbiwukaayu ajjana i gis nga li ko tàmbalee ci bis ba ca guddi ga ba ci semaine ba ci weer wi ba ci at mi waxtu woo taxaw rek am na ay occasion yoo xam ni borom bi daf koo def ngir nit ki man cee jaare tàbbi ajana xoolal rek mbokk yi yonent yàlla bi nee na ci julli julli juróom ci julli fajar defee ko ni ko ko lislaam sante fii ba tisbaar di jot su fi moytoo bàkkaar yu mag yi lu mu def ci ñaawteef bu ndaw rek suñu borom falaxe ko bàyyi mu jàll maanaam nëpp nëppal ko rek bàyyi mu jàll su jullee tisbaar ba keroog muy julli tàkkusaan su fekkee dafa def ak ay ñaawteef te fekk duunal kabair la suñu borom xalaate ko rek daal di bàyyi mu jàll noonu la koy topp bu juróomi julli yi te la joxe misaal ndax ku am ak dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu juróomi yoon ndax tilim dana def ci yaramam saxaaba yi di ko déedéet yaa rasulallah mu ni noonu la julli juróomi la dañuy pompe ay bakkaar comme ni ndox mi di pompe tilim bàyyi boobu xoolal bis bu ne ci guddi ci saxiixa muslim yonent yàlla bi nee na am na wenn waxtu woo xam ne ci guddi gi sunu borom ci màggaayam ak kaywaayam ak ñàkk a nuróogum ñàkk a nuróog lenn day wàcc ba ci asamaanu benneel wàcc koo xam ne day tolloo yemoo ak màggaayam ak kaywaayam bila takyifin wala tamthilin wala taatilin wala tashbih amul ku muy nuróol amul ku muy dendeel amul kuñ koy joxe misaal waaye wàccuwaay bu mel bu yemoo nam mel moom sunu borom su wàccee ba ci asamaanu benneel muy wax ak ñi nelaw ak ñi toog ak ñi nelawul sunu borom naan ee eh, yéen jaam ñi kan mooy jéggalu ay bàkkaaram ma jéggal ko ko waxtu waa ngi waaj a jeex waaye kan mooy ñaan ay soxlaam ma may ko ko yéen fi yàlla dinañ ko loolu sunu borom dana ko def guddi gu jot beneen occasion boobu bàyyil boobu ñëwal ci semaine bi yéen fi yàlla bi nee na bisub àjjuma am na ci waxtu woo xam ni amul jaab bu muy tombeel mu tàllal ay loxoom yàlla di ñaan yàlla lu dul yàlla dana ko may lam doon ñaan borom xam-xam yi jiwee nañ ci waxtu la waaye li gën a dëgër mooy mi ngi nekk ci waxtu tàkkutaan bu nu jullee tàkkutaan ba nopp ba jëm timis waaye nag ca waxtu wa sëf ca timis ja bi maana bu ñu dee ba six heures dugg commencé dugg six heures demi jëm na fa ñu jullee timis dig digal boobu mooy waxtu wa nga xamante ni moo gën a dëgër tombeeg jant ba di bëgg a sopp yonent bi dafa jàngale ci weer wi nit mu woor ci ñetti fan treize quatorze quinze ci weeru jullit ñi loola dafay tombeeg nit ki mel ni ku woor at mi yëpp bàyyil boobu ñëwal ci lii di tax a jóg tey muy aj occasion bu mag la boo xam ni fóotu bàkkaar la waaye weer yi tamit ak weer yi ko jiitu nekk ashurul xorom nga xam ni bokk na ci weer yi gën a màgg ci weer yi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala ci kaw ak mbokk yi jaamu yàlla bu màgg la boo xam ni dafay tàmbale ajana waaye dafay sellal bakkan tamit ba doomu aadama ji su fekkente ni daf koo jooxe ci anam bi nga xam ni moom la ko sunu borom sante wa ma al asafi shadid bariwaane ñoo xam ne dañuy jooxe aj waaye lay aj ga daal sax nuy wax comme tey wax dëgg yàlla alhamdulillah liy dem ci xar ak màkka bari na ba bari waaye ci jéggi dayoo at mu jot mu yokk ñiy déglu information yi xam nañ li may ni at mu jot rek da ngay gis li demoon daaw mooy ëpp li demoon li nar a dem ren moo ëpp li demoon daaw li demoon daaw mooy ëpp li demoon daaw ji kon alhamdulilah nit ñaa ngi di bari waaye lu tëral mooy aj ci boppam mbokk yi da di jaamu yàlla gu màgg gu rëy gu sell gu jafe goo xam ni bari waa na koy def ba noppi te aj jëlu leen jëriñ dara xam nga moos la abdullah ibn amar waxoon naafia ndongoom lu lu lu mag la ànd ak moom ñuy aji mu xool mbooloo mi war seeni giléem ñu war seeni fas ñu war seeni mbaam jëm màkk bari lool comme ni ngeen ko gisee léegi moom dem nañ ba nit ñi xaar ci sax Air Afrique ay sociétés yu bari léegi ñu ngi organisé ngir ci yóbbu asamaan alhamdulilah ala dalik kon bari waay bi laa ci jublu naafia ni tey ren de màkk nar naa bari ah ren de ujjaaj yi bari nañ mu ni ko déedéet ren ñi jëm Makka bari waaye ñii aj moom bariwuñ xoolal yi boobu fiq ni mu xóotee mbooloo maa ngi dem ndongo yi ren day ñu nar a aji bari nañ mu ni ko déedéet ren ñi jëm Makka ñoo bari kon ndekk jëm Makka ak aji bokkuñu ndax nit fekk ay bagaasam xëy biyam ndax dafa am xaalis takk dem aji loolu moom dëgg yàlla yaakaar naa ne ñi ko mën bari nañ waaye dem aj aj bu lislaam gërëm nag ñi koy def duñu bari wa ma dalika daanaka nit sax même bu xamoon ni ñuy ajee sa ajukaay ba ña ngi cay def ay mooy yàlla ki ñaawteef yoo xam ne loolu da nga yaakaar ñii sax ba ñuy jóge seen dëkk tàggoo yoon pour dañuy aji kon jaamu yàlla goo xam ne buñ ko joxee nañ ko war a joxee wax dëgg yàlla dafay ba bakkan ba nit ki bu delloosee dafay soppeeku ak ci boppam ci làkku arab ci wàllu luga mooy alxasdu alxasdu xajja mooy xasada kon tey su ma digoon jublu pota bële su ma nee xajja ci laa ko arab wala xajajtu ah haadihi saariya mooy jublu naa dem naa ca la nga xam mooy côté bële am naa ci sharia nag bu ñëwee aj ak jaamu yàlla la goo xam ni dañ koy joxe ci ay jëf yu ñuy def lu mel ni daw safa ak marwa lu mel ni wër kaaba ga ci ñetti tawaaf ya tawaaful qudum tawaaful ifaada tawaaful wadaa lu mel ni sànni jamra lu mel ni dem Muzdalifa lu mel ni dem Munal lu mel ni taxaw Arafat ila axirihi ah yooyu yëpp ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ni mooy moom la ñuy tuddee ak comme ni ko sunna jàngalee. bu dee omra nag moom ziyaar rek la ziyaar rek jug dem ziyaar bi foofu nag nit ñi dañuy faral di juum da ngay suñu mag ñi bu kenn di tàggoo damay dem ziyaara ji yonent bi déedéet loolu kenn du wax imaamu Malik loolu boo ko musaana wax da lay komploo mu ni kon yow aji woo toogal bul dem da ngay dégg koo xam day tàggoo bi damay dem ziar jënt bi loolu kenn du ko wax islam da li nga yokkee mooy damay dem aji ji waaw boo ajee ba noppi ne bëgg dem ziar jënt sa salam kenn terewu la ko bal takk say bagage ji yonente bi kese kese kese kese kese taxulaa ji daa bokk li ñuy tere loolu nag boo ko waxee nit ne lu rëy la hadis la bu wér la tusaddu rihaal illa ila talaati masajid takk say bagage damay ziar ji ab barab wala ab nit bu fa yonent yàlla bi ne nag kenn du ko def lu dul ci ñetti barab li may wax du samay wax waxu yonent bi la alayhi salaatu wa salaam la tusaddu rihaal illa ila salaati masajid takk samay bagage damay tukki foo jëm damay siyaare ji diw muy ku tëdd ci armel muy ja muy suuf sa muy lu képp lu mu mën a doon islam da koy tere moo tax Abu Hurayra keroog ba mu génnee dem sa tuur muy fa sunu maanaam euh, waxante woon ak Muusa muy damay ziyaara ji barab ya fa nekk ah armeel yaa xam nay demee noonu fekk moom déggul woon cere gi bi mu dajeeg benn saxaaba ca gannaaw kër yi mu laaj ko foo jóge mu ne ko fële laa jóge mu ne ko soo ma tàgg woon doo dem ndax yonente bi lii da koy tere sallallahu alayhi wa sallam lii mooy sunna de lii mooy njàngale yonente bi alayhi salatu wasalaam kon kay da ngay aji waaye boo ajee ba nag nga dem ziyaara ji yéen sa salam kenn terewul ko parce que def nga lu baax a baax a borom bi taala muy wax ne walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla warlul na ci kaw lootu jaam ñi ak buñ ko ameel war koo def mooy ñu ajal ko néegam bu màgg bi xam ngeen ne néeg boobu mooy awalu baytin wudu ala nnaas in awala baytin wudu ala nnaas lalladi bi bakka euh, saxaabi yu baax ba euh, abu dar al gifaari laaj la yonente yàlla saa salaam ban jàkk la njëkk a def ci kaw suuf mu ne ko xanaa masjidu Makka bi masjidul Haram mu ne ko ban jàkkaa ca topp mu ne ko masjidul Aqsa muy bi nekk Jérusalem mu ne ko seen diggante ñaata at la mu ne ko ñeent fukki at ah te gis ngeen comme ni ñu gisee sa xadis boobu kon jàkka ja di topp mooy nekk jàkka yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ci xadis Abdullah ibn Amr sama eran l'islam ci juróomi kii juróomi photo yoo xam ni benn bu ca fàq rek néeg bi day daana ginnaaw boo waxee shahadatu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne boo ko xamul loo def baaxul ah ginnaaw boo joxee julli nga joxe azaka nga woor weeru koor nga aj néegam yàlla bi waaye aj yàlla bi nag moom soo ko seetlu ci sunna mbaa ci alquran moom dañ cay toftal boo ko ma def foofu mooy moo ne boo ko ma yàlla def yeneen jaamu yàlla parce que woor boo ko mënul doo ko def sarate boo ko mënul doo ko def euh, euh, euh, nu mu tërati boo ko def na waaye aj rek ngay gis nit ñi boo ko mënee xam ne boo ko seetloo da ngay xam ne na ci loolu mooy aj rek moom mooy jaamu yàlla goo xam ni li mu dajale ci soor ak ay nit dem ak joxe ca sa alal teg ca sa bakkan teg ca bari amul génn jaamu yàlla bu ko kon kooka boole ca benn yoon moom baax na ci lool moo ne moog yeneen yëpp ñoo yem boo ko bëgg doo ko def ah benn yoon la war ci dundub jullit bi ñaarub ñett benn bi ci xaritam euh, euh, nu mu Abi Hurayra yéen yàlla dafa taxawal saxaaba yi xutba leen mu ne waaw sunu borom de farataan na ci seen kaw ngeen aj néegam bi fa xajju kon na ngeen dem aji benn waay jóg ni ko waaw ndax at mu jot la ñuy aji yéen bi sëgg fi mu sëgg rek faalewu ko waa ji toogam yaat mu ne waaw ma ne ndax at mu jot la ñuy aji yéen bi sëgg fi mu sëgg rek faalewu ko ba mu toogee ba ci ñitteel muy waaw damay man sama laaj bi xanaa déggunu ko at mu jot la ñuy aji yonent yàlla bi ne alayhi salaatu wasalaam ah, su ma ne woon waaw kon de yàlla dana ko yoonal ci at mu jot di ngeen aji te su ma nee waaw yàlla yoonal ko du ngeen ko man fii ngeen yem fi leen yemloo nee naa dañ leen aji koy tëjoo sa gémmiñ nga yonte yàlla bi nee na ci gën a rëy bàkkaar fa yàlla yowmal qiyaama mooy koo xam daf yàlla dafa boyal benn mbir sab laaj wala say wax sa yàlla ko ci kaw nit ñi te naruñ ko woon farataal lii moo taxoon saxaaba yonte wax dañ naan nut duñ dégg duñ duñ duñ nangoo loolu wax ba dara fekk ñu araamal ab mbir te naruñu ko woon a xaraamal waaye say wax moo tax ñu daal di koy xaraamal yéen ci yàlla mu ne gis nga ñi leen jiitu woon lii moo leen alagoon ah bari ab laaj foo leen fekk laaj di laaj di laaj am na loo xam ne jërut laaj ñaareel bi moom mooy wuute seeni yeneen man daal ma leen digalee def leen te la ngeen man su ma leen teree bàyyil daga nga jàll te la ko def xarit waaye man li ma yéen ci aj bokk na ci mooy aj mbokk yi dafa dajale ci ay xeeti jaamu yàlla lu bari loo xam ni néew na nga fekk ko ci geneen jaamu yàlla xam nga fi mu nekk nii moom jullee ngi ci biiram ah aj joxe alal ngi ci aj jihaad la parce que yonent bi tuddee na ko jihaad yi ci ne joxe alalam joxe bakkanam song ca ñàkk ca daw ca ah bakkanam man caa des yooyu yëpp ay xeeti benn bu ci nekk rek bu demal jubbab boppam ak jaamu yàlla bu bu bu moom kese kon yooyu yëpp bu dajee ci aj mbokk yi la muy wane mooy aj kat nekkati kon lu rëy la loo xam ne ci mën na caa faat boo yeneen xeeti jaamu yàlla yudul aj bi kati loolu tax na mbokk yi su fekkoon ci ni ñun day xam nañ dëgg dëgg dëgg aj wallaay effort bu ñu mën a def pour aj danañ ko def waaye nag jërut effort bi nit ñi def tey na ma bu ñu xamoon lu rëy li nekk ci aj coono bu ñu mën a daj nag ak loo mën a daj te mu dagal te nga def ko pour aji di ko def parce que leneen yoo xam ñoom lan la ca garanti dañoo gis jëriñ jaamu yàlla bañ la ko garanti waaye nag jërut li ci nit ñi dañ tey na xam li ca bokk ak tontine ci yaa ngi yore ay mooy yu luy jeex na euh, am loo xamante ni sa njaboot ñi ngi tumurànke nga leen dem aje ji ko toog ah na xam yaa ngi yore ay nit ba ñëpp laa tëj kaso nga bàyyi ko fa dem aje ji déedéet jëru ko nag wax yàlla jëru ko de xëccoo yeeg yooyu yëpp jëru nga léegi doomu aadama dañuy teg seen i coono seen bopp coono yoo xam ne daa nga ko jëru ko même si tabaski fi mu nekk tabaski ngi jub si waaye ci la nit ñi ñaa ngi tàmbale di ko waxtaanee jëru ko fii euh, ci réew dañuy jël góor gu baax bu bu mën a jàngale danañ def at mu jot mu dajale nit ñi jox leen ay xari ku ñëw rek mu jox la xarum tabaski waaye te déwén sa mu def jàngale moo xam ne yàllante ko woon mu njëkki ko mbooloo mi ñëw ran gudd lool kenn ku nekk di xaar xarum tabaski mu toog ci piliyaan bi rek ku ñëw mu ni sa digganteeg yàlla am nga xar am nga loo jëndee xar wala amoo loo jëndee xar nga ne sama diggante bi yàlla de aw ma lu ma jëndee xar nga ne demal ñibbi ko sama si wàcc na keneen ñëw mu ne ko am nga loo jëndee xar wala aw ma loo jëndee xar mu ne ah wax dëgg yàlla am naa ko mu ne demal nga jënd ko jaaral côté bi ku ñëw rek boo nee aw ma ko rek mu ne demal ñibbi wàcc na ku ñëw ni am naa ko muy demal jëndal ko sa bopp ba mbooloo mi jeex ñëpp sax jeex na amul benn soxla fi mu nekk nii am nga loo ko jënd demal nga jëndi ko amul loo ko jënd wàcc na la sa fellu paa bi jëru ko gis nga nit bu fekkente ne dem na ba tabaski amul su ne loolu laa leen wax mbokk yi ma ne leen wala imaam sax imaam fi ne ak imaam rus naa rey bay fi ñi di la xool déedéet imaam sax waroon na ko mën a am mu dem jëndi aw bay bàyyi fi xar rey ko ngir jàngalaale nit ñi parce que am na ñoo xamante ne fi ne bu ko imaam defoon rek léegi ñu ñeneen waaye bu ko imaam imaam di ko ba ci kanam nit ñi mu rey aw bayam nit ñi gis ko ah ñu xam ne kii kat ñàkk lu mu jëndee xar su boobaa day ñemeloo ñu ci des waaye fi ne kenn ñi moo la rey moo tax boo ko seetloo ba ci biir kenn ñi moo la rey bay kenn ñi moo la bind xaram ndaw boo ko xoolee ba ci biir résultat ba mu lay jox également yi ngir ñu seetlu mbaa ñi ciy sellal bariwul kon ak ci nit noonu la mel soo nee ci nit ñi nag daanaka jëru ko xëccoo geeg sal sal geeg boo ko yàlla yombal le bu ñu la ko mayee leew na ndax luñ la may ci alal la bopp bu fekkee la nga mën caa aji baax na bu fekkee loo ñaqal sa bopp la moo ci gën a baax nag moom ndax lu ñuy lekk loo ñaqal sa bopp jaamu yàlla gu ñu jox suñu borom loolu ñaqal sa boppaa ci dàq na waaye nag mbokk yi jaamu yàlla yi dañoo xamul ni nekkate aj moom ak fayam mooy ajana foofu tamit li ma ci waxaat mooy li ma waxoon ndax yeneen jaamu yàlla yi ku man ku mënul da ngay def waaye bu ñu nee aj ku man dafa fekk ni aj daa gën a waaye bu ñu nee ajana mooy fayu aj yeneen jaamu yàlla ajana yi seen fay waaye aj dafa jafe am coono yoo xam ni vraiment ka ko matal moom kooku dafa yeeyoo dëgg dëgg dëgg dëgg mérito ñu sàmbal ko ajana Abi Hurayra mu ne yonent yàlla bi neen sallallahu alayhi wa boo ko defee ba mu nga dem umra ci waat ah na nga yëg ni diggante umra beeg umra bi waat loo ko def ci ay bàkkaar yu sew soo ne suñu borom dara la ko fompal waaye aj bu yàlla nangu moom amul ab yoolam lu dul tàbbi ajana xanaa nit ñi dañoo xamul ni aj ci boppam dafay kappaara ay bàkkaar mboolem bàkkaar yi nga xam ne nit ki am na ko su dee kabaayir nit ki dem tuubi abi hurayra mu ne yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku aj falam yarfus ar rafas alxaafis ibnu xajar ci fathul baari daf koy firee ñaari fii benn bi mu ni mooy ànd ak ak jigéen mu tëyeeg moom beneen bi mu ni mooy jëf ju ñaaw ju àggu foofu waaye jege na ko mu ni ñaar yëpp ar rafas mën na kaa tekki kon jëful ak ñaaw gu mel ni njaalo ak ya ko jege jegaan féete ko suuf wa walam yafsuq di fut saay saay nee na su boobaa su dellusee dafay pomp ci ay makkaaram ba mel ni bis ko yaayam juraati mu nekk lii lii ñaata makkaar leen daal bi ñu tuddoo tey dara makkaar leen daal waaw ko dem ci aji yii dëpp ko ne ko yow jéggal nañ la say bakkaar ba nga mel ni liir bi amaan na kenn ci ñun ko dégg mu ni ah kon loolu rëy na de ma ne ko waaw de waaye jafe na de est ce que xam ngeen nit ñi fi ne ñi ngi dem ba màkka di fa def yu bon yi ñu fii gis nga nit am na benn waay wax te loolu aw xas la waaye lu bir la gis nga ci wàllu yaru rek yaru su ma benn xarit bu ma sa aji nee na ma gis nga boo duggee ci biir sant yi rek da ngay xam ne sant yi sénégalais yi nekk ndax ñeneen ñi nit ñi saraxlaayoo yaru noppi jiim ci kaamil amul jum amul nangam déedéet santab sénégalais moom mu ne boo ñëwee rek bu dee yow ku xereñ nga rek da ngay ñëw rek xam ne fii ay sénégalais ñoo fi nekk foo toll seen kaw lu métti ci xol bu ñu ay mooy yàlla sax ma nga fay am dimanche bii passé dimanche bii passé waxtaan naag suma benn xarit boo xam ne daaw laa aju woon mu ne ma am na waa joo xam ne fii la jóge ah dem ba ci foofu ji aji moom demoon na daal lii may wax da koo fekkee moo tax ma di ko liggéey mu ni moom mu nekk foofu am ku mu joxanteel rendez-vous foofu ci tegg tànn diggante tànn ak oto muy njaalal moom foofu nee na waaye kéem taan suñu borom bi mu joxal ma kon bii ki na leen tëli fa la dëkk muy waa ji def gët bii may bëgg a wax nee na bi loolu amee nekk tam na benn waaye boo xamante ni ndeysaan dafa tànk yi baaxul waaye yàlla war wërsëgal na ko mu aju moom mi ngi tëdd ci tegg tànk bi nelaw nee na bi ngeen gisee ñoom ñaar mu yóotu loxoom bi mu yóotu loxoom rek ko ko góor xëcc ko dëkku da koo gaañ bi mu jógee foofu dégg naa sax moom fa la jaare ki na xool xool yii jëf yu ñaaw yaakaar naa yéen a ngi dégg ci xabaar yi diw dafaa sàcc diw dafaa nangam dafa mel ni ci yàlla taxu leen war moo tax ma ne la jafee ay def def parce que doomu aadama yi tey dañuy dem ba foofa di fekk wallahi wa rabbil da nga gis ay jigéen ne laa la ñuy joxanteel foofu rendez laa yii bu leen jàpp yi dañuy toog di ko wax nii rek maanaam lu ñuy gëstu la ba am ay xam-xam doo koy wax lii dafa ñaaw ñaaw boo xam ne jéggi na day rus lu sax ni këri waaye soo yokk ngir nit ñi xam ni la Abdullah ibn Omar waxoon rek mbooloo maa ngay dem màkk de ngay dem màkk bari nañ moom bari kon yéen yàlla mu ne yii de ku sa góorgóorlu defoo ca ah da ngay génn ci say bàkkaar comme ni nga xam gis bi la sa yaay juree woon xadis boobu muslim ma ko solo ndax doomu aadama yi liñ gën a ragal rawatina ci bi ñu toll muy ñàkk te foofu maa ngi ciy waxaay ne ñàkk ji maanaam jàmbat ji fay du ko faj moom jàmbat ko di ko du du mbirum nguur ji xam nga doomu aadama yi nañ i xel ne l'islam ci boppam l'islam dafa amul yar yar boo bokkul ci di xas aka saaga aka wax ay wax yu ñaaw ci jii ci ak kum a doon même bu doon yéefar la même bu doon yéefar ñoo ko xas aka saaga aka nanga parce que kilifa la rawatina nag bu dekkee juróom nee na julli la nga gis ko muy def ñu ko julli jox ko àtte julli bu fekkee da nga la métti dellul ci sa bopp gis nga nit ñi kéem sa laayet ni nu mel noonu la leen di yàlla di nag ku leen jiite mel noonu jiw yaa ngay jiw ñëw ngay lekk milliards yaag nangam dama ni boo ko toogoon nga lekk milliards comme ñoom jiw nangam nangam na di jiw waaye bu ko jiw tamit toog da ngeen di yaakaar ni fi mu nekk nii maanaam tamit dafay am gis nga mbir mi lépp jiw moo fi toog wala jiw jóge fi mi du loolu mbir mi mooy nit ñi ñoo dem ba toll ci ay mooy yàlla koo xam ni faw yàlla wàcc mbugalam zahara al fasada fi l barri ma kasaba aydi nas te lii yan ci waxoon na ko alayhi salatu ba mbir yi am mbir mi am saa bu ñu demee ba lale am lale am feete bu manqué nit taw bi taw bi ñëwatu saa bu njaalo bi wasaaroo feebar yi kenn mës ta xam commencé ñëw ila axiri yi gis ngeen kon li jaadu mooy nit ñi ñu xam ni ñàkk gi su boppam jëru ko jiñ kenn ku nekk mooy góorgóorlu sa boppam waaye ñàkk sa su boppam borom xam-xam ci istidlaalu xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aj da koy faxas da koy dindi yent yàlla bi nee na aj ak umra day ñoom ñaar dañuy ñett di pomp ay bàkkaar comme ñi nga xamante ne weñ gu ñuul gi boo ko jëlee dugal ko ci biir sawara bi ni uude bi def wala or bi wala wala wala xaalis bi ni ko safar ji safara si bi karñee bu dee ba ñu jubbanti ko xolli sànni fële dindi salta yee bàyyi la weñ fërëm gu ñuul bu xonq ga loolu nga xam ne noonu la koy tetalee ci tilim tilim yi bàyyi koo ci suuf si yonente yàlla bi nee na alayhi salaatu salaam aj noonu lay def ak nit ki waaye bu dee aj du yàlla nangu moom moom dugg àjjana rek mu jeex jigéen nit ñu yëg ni jihaat li muy rëy rëy rëy màggat yi mag magal yi ñu yëg ni ah, buñ mën si dem jihaat it bu ñu demee aj mel nañ yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisam Aïcha Aïcha gis nañ ñi góor ñaay dem jihaat ci lépp dëgg la jigéen ñi léeg-léeg daal mu ni ko waaw ñun jigéen ñoom noonu la ñuy def te nga dem comme ñoom ndax ñoom tiyaabay jihaad yonent bi ne déedéet jigéen day jihaadam dëgg dëgg dëgg bu ma nee aj mooy mu dem aj am na beneen lafz yonent yàlla Abii Hurayra dafa wax ni jihaadul kabiri wa daif wal marati al hajj jihaad yi ku màgget ak ku fële ak ku néew doole moom jigéen ñoo bokk yam bu ñu ajee rek am nañ yoolu ku jihaad te loolu lu rëy la imam Nasaa'i moo solo xadis boobu ànd ak loolu ñu xam ni ajkat yeeg umrakat yi gane yàlla la subhanahu wa taala lan ngeen xam ci gan goo xam ne mbokk yi yàlla subhanahu wa taala la gane ji kon yaakaar na ne ngan bu ngeen mës a xam ci kaw suuf gu neex ngan googaa koy dàq ndax kat jub gane ji yàlla subhanahu wa taala ci hadis boo xam ne euh, Abi Hurayra moo ko soloo ja jaabir moo ko soloo mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na alxujjaaj wal ummar waxdullah ajkat yeeg umrakat yi day ay gane yàlla lañ daaahum fa ajaabuhu yàlla moo leen woo ñu leen wuy ci moo tax it wa saaluhu fa aataaw moo tax bañ fa ñaanee rek lu waay ñaan rek yàlla may la ko ndax ay gan yàlla lañ parce que xam ngeen ne su fekkee ab buur rek moo mën a invité ay gan defaral leen ci ay teraanga loo xam ne kenn musul gis lu ni mel kon yàlla ci boppam bu fekkente ni eh, ay jaamam ganati nañ ko ci anam gu mel nii war nañu mën a defal lu gën a rëy li nit ñi mën a def ñaareel moom mooy aj ku ko fas ba def kat da ngaa nekk ci garanti bi yàlla subhanahu wa taala waaye aj tamit ay Abi Hurayra mu ni ñett ngi ñoo xam ni yàlla daf leen di garanti waa ji nga xam ni dafa génn ci jàkkay yàlla joote la mu war a joote ba noppi yàlla moo ko defal ak garanti garanti gi nag mooy kenn mun laa dogal rey la ahan kay mën nañ laa dogal rey yàlla seen am fekk dara bëgg naa balaa nga jaar ko dugg na ci jàkka ji nga génn muy fajar nga nekk ci garanti bi yàlla benn waaye daf la tiir la nga dee ñu ni nekkoo ci ah, garanti bi yow bu fekkee dalaa garanti bàyyi na fi nga nar fay dund dund ko xajam ji nga ki koy laaj benn waaye du la rey fekk yaa ngi a pare jullit nga la garanti na la àjjana gi gis nga beneen bi mooy waa ji nga xam ne dafa jug nàmp jaaseem jaar ci saawa gi dem jihaad fi sabilillah beneen bi mooy waa ji des moom dafa génn fas yéene aji aji yi daa lañ gën a sellante ndax am xam yéene nit ñi aji ba ñu ñëw kenn du yëg ne aji nañ man gis naa waa joo xam du ñuy aji kere bu muy dem quarante lay quarante ñi ko doon kër dañ ko doon reetaane loolu car rapide lay bi muy ñëwee moom la yéeg yëgalul ni maa ngi dem yëgalul ni maa ngi ñëw kenn yëgu dara maanaam daal ku waxul ne aj naa te ne mënoo koo xam yow loolu yëpp ngir nit ñi lan moo fi jar waaw aj jaamu yàlla la dem jàkk ni jaamu yàlla la ndax dafa benn tegtal ci sunna boo xam dañoo ku aju ba ñëw nañ ko ganale déedéet amul lu ñuy ganale di ko aju ba ñëw defoo dara lu jar ganale jarul yendal jarul rayal gàtt jarul dara da ngaa aji ba ñëw nit simple la comme li la war muy nga toppee ko ay jikko waaye da ngay seetlu nit ñi li ci la wa illaa ba ngi tuddee la ajaa wala allah ji comme ni ngeen ko xamee ci réew mi yooyu tur amul solo déedéet amul solo ci ci ci l'islam moom xamuñ loolu ay allah ak ajarata déedéet amul loolu li am daal mooy aji nga yàlla nangul ko loolu muy lépp solo beneen bi ci des mooy ku aji ba ñëw boo ko xoolee wax dëgg yàlla ay jikkoom war naa toppee am na lépp bu wolof yi lépp ñu wax ni li li li li muus demee aji ba ñëw bu ñu waxee jinax dama ziyaar ji ku mu ni déedéet naa aji ba ñëw waaye du dox ay jikkoom soppeeku man na maa nekk foofu loolu ab xekkma bu rëy la mooy nekk nit mën naa dem aji mu ñëw waaye bu ñëwee du tee jikko yëpp nekkoon siriyaan gaag jubadi gaag caay caay gaag naxaate gaag toppale yaag lépp des ci moom kooku benn mandarga nga bu gën a rëy ci mandarga yi bu koy wane ajam moom nanguwut ndax ku sa aj nangu rek boo ñu bisee soppeeku amaan na ñu mel ni man ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne war wërsëgalu leen aj ñu ngi xeneen di yuppeeku ngir montagne yi tiyaaba yi ak tàbbi ajana yi ñu dégg te amuñu ko ba tax ñu bëgg a jaar yoonu Moussa jéem jëru ko jëru na yàlla subhanahu wa ku maandu la maandu géeg maa am géeg yërmande bi dañoo kolewu ñoom ñett ñëpp bokk na ci li muy def mooy gis nga doomu aadama ji lum la xañ rek jox la la ko def lum la xañ rek jox la la ko def ah, aji woo am na yeneen xeeti jaamu yàlla yoo xamante ni ko aji du ko def yow rek yaa ko def yow yooyu nag amaana la àlla des na ko leeral ci xutba ji di ñëw ci nit ki mën caa góorgóorlu amee ko ca ca arafa ca la bokk fukki fan yi dil xijja ca la bokk nga xam ne yàlla mi ngi ciy jiw wal fajr wala yàlla na asr nga xam mooy fukki fan yi njëkk ci moom la ñuy tuddee fukki fan tabaski nga xam ne ku nekk loo tabaskee ngay jéem a lijjanti ci fekk déedéet loo tàbbee àjjana nga waroon a lijjanti parce que fukki fan lañ la ci ji yoo xam promotion la pour tàbbee àjjana yooyu danañ ko leeral ci xutba ji di ñëw nit ki mu yëg ni doomu aadama jëru muy sonn ci nangam diw lu am su ma ko amoon su ma nangamee nangam déedéet ñee ko rek da nga ñaan yàlla nga am wasalullah min fadli comme ni ko sunu borom di waxee waalamu anna al fadla bi yadillah yuti man yasha ngëneel yi moom ci loxol yàlla soob moo ko nekk moo ko jox ko soob gis nga bala ngay xam ni du ma du war a du war a rek mooy tax aji da ngay gis waa joo xam ni yorut yorut ay jëlewam doyut daa waxuma sax waaye dama ne sëb yi gën a bëri lii ci Sénégal sax mosu mu toog ba mu yàgg rek ñu ma may ko bii ne ko demal mooy yàlla ku mu woo da nga wuy si wa addin fi naasi jël ajji yatuuka rijaala man mu ulaayka rijaal alladina daahum rabbukum ñun yàlla woo faaw ñu wuy si la faaw faaw ñu wuy da ngay gis waa yoo xamante ni ma ne la biñ ne ko dinaa wàcc suba ngay dem ci la ko doog a yëg moom li jëm tamit ay kayit ba na fa yëgu ko sax faf benn waaye jóge fa la may la kee jóge fa la sarax la ko kee amoon ko daal di koy joxaat kee am ñaar jox la benn bi kon mooy yàlla bu la tuddee da ngay dem waaye yenn coono yi jëru ko takallufaat yi jëru ko maanaam nit ki mel ni dafa gëmatut yàlla ci def-def yi jëru ko ñu wax la yaay allah jooju yaa dem màkkaan yooyu jëru ko li am solo mooy buntu jaamu yàlla dafa war di sell ci aj ci jaamu yàlla yi sell la bopp yal na yàlla dimbali ci jaamu yàlla yi mën a sell rabbana atina fi dunya xasana fi laaxirati xasana wa qina adaba annaar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا لمن اهتدى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نقصان عليك anta kama asnayta ala nafsik allahuma asturna fawqa al ard wa taxta al ard wa yowma al ard alayk wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajmain